ami site internet net bi tv dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar dañ koy door rek élection présidentielle nag man na mën a commencé na bëri ci biir réew mi rek nee na nag niki tey ji rek dina def ngir annoncé bu baax li nga xamante ne moom mooy candidature ci élection présidentielle yi bu ñu fàtte nag nag kii di Maître moom moo nekk euh, moom bu PTP niki tey ji rek fas naa déclaré candidature moom nag la mu si nag ku ci falu rek doon buur ku ci falu rek doon multimilliardaire waral nag mu daal di samp ndëndam ci moomu le mbir moom naka la mu daal di xam na rek nee na pour nekk président bu baax il faut nga am république bu baax ba noppi rek ci mbir mu nu mel na ci la fas yéene déclaré candidature am ni ki tey jii ba tey rek Maître El Hadji Diouf nag pare na rek pour déclarer boobu candidature am bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu wax rek ci mbirum Birame Souleye Diop maire bu Thiès kii di avocat Moussa Sarr nag saisir na chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ndakaaru nag ngir wax bu baax arrestation bi nga xamante ne rek niñ ko arrêté moom mi nga xamante ne rek moom moo nekk numéro 2 bu moom moo nekk président bu groupe parlementaire yeewu askan wi wante nag avocat bu maire bu Thiès bi nag déposé na li nga xamante ne nag moom mooy ci kanamu justice bi ab requête rek buy wane rek ñu annulé lépp loo xamante ne rek ay daan rek jëmale ko ginnaaw bu ñu gisee rek ne dañ ko violé ba noppi rek xañ ko lépp àq ak yelleef ndax levé wuñ benn yoon immunité parlementaire ba tax na nag mu daal di yóbbu leen ci yoon bu sukkandikoo rek ci article bu ñu combiné bu nekk 61 alinéa alinéa 4 ak 51 alinéa alinéa 4 benn député rek waruñ koo arrêté rek te amuñu autorisation ba noppi rek wala ñu yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy assemblée ba tey rek moom maître ma ngay naqarlu nag mbir mu nu mel ñu fàttali nag numéro 2 bu Pastef nag ji nag jàpp ko niki 11 juillet bii ñu génn rek lañ ko jàppee nag moo ay kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko rek teg ko ci kaw ndodd kii di président Macky Sall neem def na sax ab jéggal wante nag benn yoon jéggaluñ ko dañ ko woon yi nga xamante ne nag moom mooy mandat de dépôt fi nga xamante ne nag moom mooy ci kanamu juge d'instruction bu premier cabinet bu Maham Diallo du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification ngir amaat yeneen info